jàppale leen également ci wàllu dund accompagner leen également ci wàllu santé donc liggéey bu yaatu la ñu ngi ci ca bu soobee yàlla bu ñu noppee di ngeen gis ni mbir mi changé na bu baax. li ñuy a seetaan ba mu débordé tey damay wax damay wax damay wax kii moo suñu chef de quartier ndox bi dem na fii 9 ans kon bu waa Sénégal taxaw tey. naan fan la ndox bi nekkoon ndox bi dafa walangaan ndox bi lii ndox bi laa ndox bi 9 ans la def fii ñun déménagé nañ un mois 15 jours avant lii di déborder kon ndox bi yàgg na fi. kon bu ñu kenn sonal ak monsieur le maire ak monsieur le préfet monsieur le gouverneur na Macky Sall yi ñëw ut situation génne nit ñi fii jigéen ñi ñu ngi fii ci kaw terrasse yi di togg ci kaw terrasse yi amul fu ñu tëdd ay xale yu am deux ans un an sama mag jabar dafa am doom ay ay ay jumeaux ñu ngi ci kaw terrasse yi dëkk préfet xamul dara ci ndox bi nañ ma yóbbu nañ ma photo ndox bi nekku fi tey ndox bi nekku fi tey ndox bi yàgg na fi ñëw day fen ku leen wax ndox bi tey la fi ñëw day fen ndox bi dem na fii depuis 2012 en 2013 Macky Sall dafa déménager gars yi yóbbu leen à Tivaouane Peulh bàyyi fi ndox bi ils n'ont pas canalisé les rues Ils n'ont pas canalisé les rues. Ils ont laissé là-bas les gens depuis 2012, 2013, 2014 jusqu'à aujourd'hui. Et il nous dit que c'est la pluie. Et il nous dit que c'est la pluie. Madame, Monsieur le maire dit que c'est la pluie. Ils sont en train de nous mentir.